dal ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen. Eh, bi ñu félicité suñu leader docteur Babacar Diop nekk euh, le président des Guelwaar FDS les Guelwaar xamante ni moom dafa samp candidature pour dem ci élection présidentielle 2024 yi fan yëpp nag ñoo ngi woon ci parrainage bi parce que FDS dafa damay faral di wax ni parti de terrain la ñu terrain bi lañ gën a euh, di di di ci loolu. parce que parrainage bi ñun moom alhamdulilah parce que dañ ko teeloon a anticiper teel cee liggéey yaakaar naa bi ñu jógee Thiès ak euh, Ndiaga Sylla bañ fa demee mu formé ñu pour ñu war a xam nu ñuy pare parrainer loolu yaakaar naa avant ñuy joxe kii rek. ñun tàmbali woon nañoo collecté parce que xam nañ li ñu laaj du génn ci biir carte d'identité yi moo taxoon bi parrainage bi ñëwee sant nañ ci yàlla bu baax a baax ba liñ ci bëggoon lépp lu ci bari am nañ ko xay na après suñu abdoulaat dina ñëw ci point boobu gën koo yaatal ñun nag point bi nga xamante ni ci lañ bëgg a dugg rek pour tënk mooy dañoo fee am ñaari point yoo xamante ni ci biir dëkk bi na muy point yoo xamante ni yu ñu jaaxal la ñu ci laaj nag gouvernement Sénégal ay tont parce que dañoo gis temps yi ci biir dëkk bi boo duggee ci Touba chef de village yëpp boo fa demee ñi ngi dajale di laaj ni léegi ñoom dañoo bëgg a yokk euh, kii bi bourse familiale bi bourse familiale bi dañoo wax dañ ko bëgg a yokk ñu dem ba à deux mois trois mois de élections ñuy wër di laaj ay carte d'identité ñu indi leen carte d'identité yi parce que dañoo bëgg a yokk bourse familiale bi loolu li lu ñu jaaxal parce que bourse familiale fekkee ñoom dañoo am ay enquêtes yu ñu ci def dem ba seen pouvoir di bëgg a jeex desul lul ay ñaari weer ñett ñiy wër di laaj carte d'identité yi xamante ni chef de village boo ci dem ma ngay demande ay dëkkandoo ni dañoo bëgg a yokk bourse familiale loolu di loo xamante ni lu jaaxal la ca nag élection yi ñuy jëm dafa war a nekk élection yoo xam ne lu transparence yu leer nañ parce que président de la république si nga yàlla dogal na moom bokkul ci élection yi li ko war mooy na organiser ay élection yu leer nañ ku gañe gañe loolu nag ñu ciy mettre en garde président de la république ak autorité yi di ciy wax chef de quartier ñoom ñu ñu ñu maandu ci. parce que koo xam ne dem na ba nguuram ni bëgg a jeex mu bëgg a indi loo xamante ni lu kenn xamul la loolu moom duñ ko bàyyi mu jàll. beneen bi ci des mooy mbirum retrait carte d'identité yi boo demee ci arrondissement Ndam bi yaakaar naa ni joxe nu carte d'identité bi teen xel. te ñun waa Touba dañuy gis à chaque fois rek bu élection jubsee dañuy mel ni dañuy indi fi ay sabotage ci ab processus électoral bi parce que lu toll ni Touba nekk deuxième deuxième ville di Sénégal gis ngeen recensement bi jàll sax Touba léegi mooy jiitu moo nekk département de Mbacké léegi moo nekk en tête waaw fu mel ni département de Mbacké nag mën na la ne mën a nekk en tête benn lieu ñu fay dajale ay nit ñu fay jëlee ay carte loolu boo demee Dakar dem Thiès boo demee ay lieux lieux parce bi ñuy bindu ñii nga doon bindoo Daaru Xudoos ñii nga doon bindoo Saam ñii di bindoo fii ñu du bind pourquoi pas fa nit ñi doon bindoo bureau chef de quartier yi ñu yóbbu fa carte d'identité yi man ko man ko décentraliser nit ñi mën a dem foofu di jëli seen carte d'identité yi mais benn lieu nga bëgg nit ñi dafa jëli carte d'identité yi xamante ne bis bi ñoom sax léegi dañoo dañoo gérer affaire ba lu néew la ñuy xëy di joxe man naa ci ñoo ni ñaar ñett yoon lañ dem dañoo mujj décourager toog loolu di ay sabotage yoo xamante ne tàmbal na parce que Touba moom amuñu fi yaakaar tàmm nañ ba saa bu élection jubsee rek genre yu mel noonu la ñuy la ñuy kii parce que jeunes yi xam nañ ñoo ëpp ci ñi war a voté ji loolu nag ñu ciy wax préfet yi ak sous préfet yi ñoom ñi organiser élection yi nekk ci gox bi bu ñu bëggee ni ñu jot seen i carte mën nañoo def pexe yoo xam ni ñu mën nañ cee jot jot gaaw parce que dëkk bi yaatu na am na nu ñu ko mën a tasaaree nañ tasaare nit ñi jox leen seen carte d'identité yi parce que nit ñi dañoo bëgg a parrainage nit ñi dañoo bëgg a voté ci parrainage bi daanaka jeex na loolu daal mooy li nga xamante ni mooy ñaari point yooyu nga xamante ni man war naa ko ci sànni kàddu dañuy ñëw rek waxtaan ci li nga xam ne moom la président communication bi bàyyee léegi muy Modou Mamoun mooy li xew ndax fi ñu nekk li fi xew loolu lañ mën a wax donc ñun dañu def ay jàngat ci dëkk bi ñu nekk muy département de Mbacké particulièrement Touba parce que bu ñuy wax tubaa lañuy wax ndax moo am dayo boobu dañu fi gis loo xam ne yaakaar jëmul jëmul kër te yàgg na fi pendant 12 ans mi ngi fi wala boog lu ko jiitu te yaakaaroon ne ay solution dina fi am bi fi nguur gi nekkee mais dafa mel ne loolu dafa yokk parce que dañu dëkk ci ay gox-goxaan yoo xam ne dañu fi gis loo xam ne ni jëmul kër mooy dañu gis dëkk bu toll ne Touba ngay dem ba guddi ba guddi ngay am ndox te loolu liggéeyu état la ngay dem dëkk Touba maanaam ci gox-goxaan yi nga xam ne moo nekk ci biir Touba wër ko ay nit di agressé yor ay jakarta yor ay paaka yor ay kii di nangu ay téléphone yu te loolu insécurité la te loolu mi ngi Touba. beneen bi ci topp nga xam ne moo gën a sonal waa Touba mooy extrait de naissance ñun mënuñu ko am département de Mbacké mais rawatina waa Touba mënuñu ko am loolu nag li ko und mooy dëkk bi lañ joxut dayoom dëkk bi li mu toll nga xam ne boo nee dakaar moom nga ciy teg wala boog département yëpp mën nañ ne département de Mbacké moo ci ëpp te bu ñuy wax loolu Touba moo tax dayo boobu te état da koo fàtte ci lépp loolu nag waa Touba delloo nañ ko ko ba tax munu fee gagné dara mais dañu xam ne ñun Touba ci Sénégal la bokk kon nag loolu solution bi ñu ci am ak xalaat yi ñu ci am mooy ku ñu wax docteur Babacar Diop maire de la ville de Thiès la ñu yaakaar ne projet am nekk na projet boo xam ne bu ñëwee ñun li ñu bëgg lépp lépp lépp dina ko matal à cent pour cent parce que nit la koo xam ne xam na li mu bëgg ndaw la te xam na fi muy teg tànkam xam na fi muy teg loxoom kon loolu laa bëggoonoo jàllale maa ngi bàyyi sama yeneen collègues yi nga xam ne ñu ngi wax salaamaaleykum wa rahmatulah. di wax ci turu jigéen ñi samay kàddu nag sensibiliser dong la ndax Touba fii boo nee élection wala nga ne parrainage koo ne jox ma sa kàddaa ne pare parrainel la sonn nañ ci lool koo xam ne la xaalis. ndax état bi loolu lay jëflante nit ñi koo wane élection mu ne la jox ma 10 000 maanaam 2019 ñañ fi joxoon ay 10 000 wala ñu jox leen ay 5 000 booboo ba léegi lañ leen mujjee gis ñu am ca ñoom lañ bëgg dem fàtte leen ni ca seen nguur ñoom fàtte waa Touba. damm nañ sonn nañ tàyyi nañ depuis 12 ans yi fi mag Sall toog booboo ba léegi jigéen Touba ñoom kaani rek la ñuy maq kon ñu bëggoon suukar si docteur Babacar Diop yor ñu xam ci dara ñu waa Touba. ndax Touba fi amul dara lu dul ay marché fi ne jaay amul usine amul dara jigéen ñi sonn nañ te ay nañ may woo nag sama mbokki jigéen yëpp ñu xëpp seen i tey xool ku la woo ne la 10 000 la ngi ne wala 5 000 ngi ne ko man lijjantiwuma loolu man ki nga mën xam ne sama avenir ëllëg ak sama jaboot moom la may mën a lijjanti kooku laay lijjanti waaye lijjanti ma koo xam ne su ñëwee bu la joxee 5000 wala 10 000 fii ba fukk juróomi at wala fukki at dootoo ko gisati may ñaan suñu borom nag lii ñu bëgg ci Touba gi yàlla suñu borom defal ñu ko te am nañ ci yaakaar bu baax ndax dëgg rek mooy mucc danoo daje woon fii tey di waxtaan ak askan wi di sant askanu département Mbacké région de Diourbel en particulier mais particulièrement euh, euh, commune de Touba mooy bi ñu duggee ci parrainage bi danoo ñëw dem ci askan wi wax ak ñoom parce que ñun suñu leader dafa wax ni yoonu dëgg dafa metti ñu dem ci yoonu dëgg woowu pour wuti parrainage mais askan wi nga xamante ni dëgg ñor na leen wax dëgg yàlla jàppale nañu ci parrainage boobu ba environ ñun de duñ wax chiffre yu mag chiffre bi ñu am la ñuy wax ba environ am nañ ay dix mille parrains muy nit ñu wóor parrains yu leer naññ ñu jox ñu ko ñu jébbal ko suñ responsable régional de euh, Baye Bara Seck mu jébbal ko parti bi loolu moo doon sababu ndaje mi tey pour leeral ñun li nu am ci parrainage yi ak ñi ñu ko parraineel dëgg bi nu bëgg ak changement bi nu bëgg loolu nag boo gisee ñu koy wax tamit dañuy mettre en garde ñi nga xamante ni danoo ñëw yor ratu gubba ni danoo am ay trois millions parrain dëkk bi façon parrainage bu ne nga fiy dégg trois millions parrain ku ko dégg sa xel war naa tey ñun ñuy mettre en garde que ni ñun liggéey bu rafet bu nu def ci département Mbacké gëm na ni FDS les Guéréwaar yëpp moom lañ def au niveau national kon ñun ñu am parrain yu leer naññ bu dee seen 3 millions de parrain yooyu ñuy lim dañ cee bëgg a profité pour kale yenn euh, parti yi pour kale yenn leader yi nga la waaye nañ leen ñu ngi leen di ñaan ñun ci dëgg la ñuy dox euh, docteur Babacar Diop parti FDS léegi la waar nan ko ca kaccet parce que ñoom pare naa yu leer nañ lañu am askan wii jox ñu ko ñu jox ko suñu responsable euh, régional mu jox ko te yaakaar naa ni résion bi yëpp noonu lañ def kon loolu moo waraloon tey ji ñu daje fii pour leeral borom 3 millions yeeg borom 30 mille yeeg borom 40 mille yooyu ay chiffre la mais li wér te wóor de ñun di 10 000 la ñu am 10 000 yu leer naññ soxlawuñu lim bu bari bi lim bi ñu laaj muy parrain yu wóor moom la ñu am moom la ñu def. parce que euh, président Macky Sall ku ne xam nañ def na fi deux mandats dem na ba jeexal wut benn problème teg ko problème ñu ni bërit ñu ni am nañ 3 millions parrain loolu yaa quelque chose. boo xamante ni nekk na ci suuf loolu tax ñuy mettre en garde di leen avertir ni buñ ci jubloo kale nit ñi dañuy sonn mais loolu du jàll parce que 3 millions bu buñ ko waxee am na luñ ci jublu loolu nag liñ ci jublu mooy kale leader yi waaye nag nanu fexe ba buñ ci boole FDS lay gërëwaat parce que parrain yu leer nañ ñi la am. dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV. moo leen di jox xibaar yu wér te wóor Rafah TV kumpa tàggoon ak yen